asalaamaaleykum mbokk yi teel a àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci safar muy weeru diggi gàmmu di ñaareelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ñett bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci àllarba ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo li ñu ciy tere tere watandiku moom àllarba mooy ku ca wala ku ca tàggoo wala ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla miy wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati sunuy xol jëmee ko sag topp allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na saytaane day yónni ay soldaaram ñuy fitnaal nit ñi ku ci ëpp wàccuwaay fa moom ci seytaane yi mooy ki ëpp fitna ci nit ñi xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yabxasu shaytaanu sarayaah fa yaftinuuna annaasa fa azamuhum indahu manzila azamuhum fitna rawaahu muslim waxtu bi lii suba waxtam dana tàbbi 5 heures 40 juróom waxtu yu tegal ñeent fukki simili tisba 13 heures 35 benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom

diso 19 heures 19 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent yàlla na yàlla nangul te nangul leen amin